auzubillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen waa Daaru Salaam si waaw ñoo ngi leen ziar leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal ya defaral dina ak àlaxira ginnaaw ban sant yàlla di julli ci Nabi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu andi leen ñaan gu baax ci wala ñaan gu gaaw ci far bakkaar ndax bakkaar yi bari na lool te réewum réewum jamono jamonoy bàkkaar la ni ko man ñi daan waxee rek tëri bu jaar ci biiru marché la boo xoolee gis loolu naqari boo gëmee dal ci njaayum jàmbur kon bàkkaar mucc ci yombut waaye ñaan gi daal ku ko ñaan suñ borom dana la jéggal mboolem bàkkaar ba mas naa amee muy allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaxfiru zunuba ila anta faxfir lii maxfiratan min indaka war xam ni innaka antal xafur rahim boo ko déggee sax nga xam ne ñaan gi mën naa far bàkkaar mu ne allahuma yow yàlla nii naka man saramtu tooñ naa nafsi sama bopp zulman ak tooñ kasiran gu bari wala yaxfiru te kenn du jégal ak bu bàkkaar illa anta kur yow yàlla faxfir lii kon suñ borom nag ma jéggal maxfiratan ak njéggal min indaka mu jóge coow war xam ni da nga yërëm ma innaka yow suñ borom de anta naka yow xafuuru yaay ki mën a jéggalaate arrahim yaay ki bari yërmande kon yow suñ borom ñoo ngi lay ñaan nga jéggal ñu adduna ak àllaaxira ak mboolem ku fas yéene jàng ñaan gi rek ñaanu jéggalu ko waay la ndax bakkaar yi bari na lool jamono ji moo tax ñu andi ko tey jël waa Daaru si baabu di leen ñaanal defaru adduna ak àllaaxira leen seer baax yéen ñu ci page Facebook ba yéen ñu ci YouTube ba am nañ seen YouTube nag ku ci mën ngeen ci rek ku ci abonné incha allah yu bëree bari dana ñëw ci yow te du dara wax ñoo ngi leen di ziar baax auzu billaahi mina